ahousubillahi min saan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin mbokki jullit yi mbokki baax a baax di leen ziare ah, di ah, baax a baax a baax tey nag ñu del siwaat seen émission bii baatu askan wi ah, ñu di amal samedi bu nekk tey dikk ngir fas dalal jàmbaar yoo représenter ci dëkk bu sell bi nga xamante ne la joo xamal la ndax ak yëngoom ak dalam foo ko fekk muy dem bu laajte xamal ne ci luy jëmale askan wi kanam rek la nekk moom lañ daal tey di ko a jox kàddu gu mu nuyoo waaye balaa boobu euh, dañuy nuyu rek ki nga xamante ne moom mooy sunu sëriñ euh, di sëriñ Mbacke Mara di koo xamante ne wax dëgg yàlla euh, sunu kon damay jox kàddu gi soxna Aïda Gaye mu daal di nuyoo bu nuyoo ba pare ñu doog a ci laaj ak tontu soxna asalaamaaleykum auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim barki sëñ Fall ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi di dolli suñu yaakaar ci Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi leen di nuyu fay nuyoo di nuyu tamit seen auditeur ak auditrice yi leen di déglu am à travers le Sénégal et le entier xam naa yéen ñëpp a leen di déglu Rafah TV moom ñëpp koy déglu waaw di sant bu baax sëriñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi moo njabootu sëriñ Touba ak gërëm nag comme noonu nga ko waxee bu baax ki nga xam ne moo tax ma jot ci moo ñu jotale tey muy Serigne Mbacke Mara ñu koy wo sëñ Mbacke Mouhamed ñu koy woy sëñ Mbacke Mara di ko gërëm bu baax mu sëñ Mahmadan ah ma di sama xarit di sama sang di sama lépp rek. toogaay bi ndax xëy na mhm. activité yi nga xamante moom ngay toggoo ñaare loolu may jot ba nga xamante ne saa bu ñu soxlaa toog yow waaye ñu tamit ci mhm. accordé gi ñu accordé émission bi mhm. euh, laaj bu njëkk bi moom mooy <laughs> loolu moom yomb na <laughs> soxna ay Gaye benn dongo la rek bu ndaw taalibi Sëñ Tuubaa boo xam ne dafa ñaan yàlla faatu ci taalibi li ma kii adresse bi ma jox sànq sax député dëgg la doonoon doon doon naa ko politicien la waaye loolu bëgguma ko faatuwaale li ma bëgg a faatuwaale rek mooy taalibi Serigne Touba waaw dëkk fii ci ndaam ah di ko xeebu rek <laughs> waaw bokk ci parti APR rek waaw waaye du ma wax dara sax bokk ci parti APR daal laa bokk. <laughs> macha Uh-huh. li nga euh, euh, ce que jàpp nga euh, nga xamante ne moom mooy jigéen a non xam nga dëkk bu nekk dafa am ay réalité mm-hmm. ñun dëkk bii ñu dëkk jigéen du fi jiite mm-hmm. ñu muy nag lu sedd suñu xol parce que comme aada dëkk bu nekk dafa am aada ak cosaanam te ku bàyyi sa aada réer te loolu mooy aadaay dëkk bi moo tax ñun jigéen ñi du ñu bëgg dem taxaw ci maire bi ba ñuy wax dara dañuy déglu ndégalu sën bi ku sëñ bi ne kooku la rek ñu ne kooku la. ñu ànd ci waaw loolu day euh, mhm. ci parlement bi. Mhm. booba nga da nga mhm. euh, ba léegi xadar googu ngi fi léegi. waaw ngi fi wante nag xam nga dangay am opportunité bi nga ma may tey jii rek ak ñu mel ni yow ndax euh, gaynde moom du màgget ndax fit mooy màgget fit du màgget. te fit bu la ko yàlla xasee jox moom jox na la ko ba pare man lépp loo xam ne lii d'accordu ma ci dama naan lii d'accordu ma ci lu ma d'accord tamit dama naan d'accord naa ci waaw mais du ma bañ a d'accord ci lëf ci biirum nekk ba pare génn ci biti di ko wax déedéet man fu mu lu nekk ci man rek dama koy wane loolu mooy sama philosophie. seen biir Touba. Mhm. nga nekk mhm. mhm. ce que politique yomb na. waaw yomb na. yomb parce que tubaab bi dañuy wax ne le respect est réciproque boo respecté sa bopp respecté nit ki rek kooku dalay delloo respect bi maa fi njëkk a nekk jigéen bu nekk député ci Touba waa mais ba léegi teewul xam naa sama cër xam naa ne taalibe la ñi nga xam ne ñooy sëti sëñ Touba yi nekk dëkk yi jox naa leen cër bu politique jotee nag ah ma politique bu politique jotee terrain bi moom awma ci kii wala kaa ku ma fekk ci terrain bi ma politique a yow koo mënti doon boo ma fekkee ci terrain bi ñu politique waaw. léegi yaa ngi dégg nii xamante ne maanaam. léegi daal dem nañ ba politique moom euh, xëy na am na ñoo xamante ne ña nga sa yoon la. Mhm. am na ñoo xamante ne daanaka boo dugg ci askan wi di wax sax nañ la war a digloo léegi duñ la ko digloo euh, kan mooy ki nga xamante ne moom mooy politicien bi gën effectivement parce que loolu xam nga lan la euh, politique sëñ Bara Dolly nee na mhm. politicien baax na politicien moo baaxul waaw. nee na loolu moo baaxut mais dëgg la politique politicien baax na parce que politicien mooy ki nga xam ne day dafa jóg pour défendre dëkkam ndax nag fa ñuy séddalee ku fa newut bu ñu la séddutit waroo mer léegi da nga bëgg dem fa ñuy séddalee pour sédd sa waa kër séddu sédd sa waa dëkk loolu moo loolu ak aar ndax yat la woo xam ne boo ko yorutit saay saay yor ko dóor la ko moo tax politique taxaw mais nag ñu ko bëgg a politiquer lu ñaaw lii waxante lu ñaaw defante ñaaw wax wax loolul nar loolu moo tax nit ñi gépp politiciens yi man nag loolu ba léegi duma ci dox man lu ma mënul duma ko dige lu ma xamul duma ko wax fépp fu ma dem mën naa faa dellu am na ñoo xam ne depuis 96 laa ànd ak ñoom ba léegi maa ngi ànd ak ñoom ba léegi nii mën naa la wan ñoo xam ne ñi 96 laa ànd ak ñoom aji sa jaañ mii ci mbaar yi ci kii 96 ak ñoom seeni wundur 96 laa àndoon ak ñoom ba léegi waaw kon xam nga ne loolu <laughs> jikko lu baax la waaw parce que politique lu baax ko tax a jóg politique koo gis mu ciy def lu bon du ci arrivé mën nga ci dóor benn coup wala ñaari ku dootu dem dootoo dem mais man ba ma fa commencé politique ba léegi tey jii laa gën a dëgër tey laa gën a ëpp base tey laa gën a mën a taxaw fi ma doon taxaw taxawaay bi ma doon taxaw. ñu mhm. mhm. euh, euh, yi ñu euh, est-ce que yoo xamante ne. Euh, pour xam bi nan la gën a toll parce que jàpp naa boobu ñu recensé woon fiableul c'était pas des recensements fiables parce que Daaru Xuddoos rek bu dee recensement Daaru Xuddoos 47000 villa nga fa maison kër nga fa. 47000 kër da ngay xool kër gu nekk bu defee juróom minute wala juróom benn nit te ëpp na ko ñun xam nga murid yi ni ñuy dëkkee kenn ku ne di am ñeenti soxna soxna bu ne dina am juróomi doom wala juróom benni doom. kon recensement bi passé moom fiable déedéet te bawol bawol it am na ci loo xam ne sunu pa sunu responsabilité la ñun nii ñoon ñoo faay parce que boo ñëwee ci kër man ma am juróom benni doom boo mën ne ñaata nga am doom nga am man la ñett ndax damay bañ dama naan ah impôt bi la ñuy yokk wala dañ may catu te fekk na du loolu recensement ku juddu dañ koo war a wutal këyit pour ñu xam dëkk bi ñaataa fi nekk loolu mooy recensement loolu moom moom lañ moom mooy recensement normal kenn ku nekk dañoo war da war a wax nombre de doom yi nga am ak nombre doom yi nga adopté ñu ne ci kër gi bu ko defee muy recensement yu fiable ñu xam Touba li fi nekk parce que sur le plan démographique Touba benn dëkk ëpp ko fi bu dul biir Dakar te Dakar da nga ciy boole ni ñu ko découpé lépp ngay boole ah euh, Touba tegu ci ndax Touba li fi nekk ci nit nekkul fenn di chaque jour am na ci ñoo xam ne amuñuy kayit am na ci ñoo xam ne fañ amoon i kayit delluwaatuñ fa pour wuti kayit kon recensement bi passé moom fiable bu ñuy recenser waat tamit dañoo war a communiquer ak nit ñi wax leen ne que pour impôt dañoo bëgg a xam dayooy dëkk bi ba war koo nit ki boo ko xamul doo ko mën a sédd am na ci loo xam ne faute état la mais am na ci loo xam ne sunu faute la ñun nañ bu recensement jotatee nañ wax nang nangami doom laa am nangami ne ci sama biir kër loolu wàññiwul dara yàlla du bind ci fukk rek ci juróom-ñeent. Mhm. léegi ba tey ñu ngi ci insécurité bi nekk ci biir Touba. Mhm. Euh, ndax am jotut ñu xool poste de police yi ñu yokk ko parce que jàpp naa ne boo xoolee fu mel ne Pikine rek. nga xamante ne moom Touba xaw nañoo naa ñu ngi ci dix postes ñun nag loolu moom dañ ko état war a yokkaat loxoom bu baax ba tey rek mooy recensement bi dellusiwaatoon parce que bu ñu recensé waat normal ba xam nit ñi niñ toll ah dinañ xam ne lii ndaxte alkaati bu nekk xëy na benn nit bu ne mënul am alkaati bu ko sàmm waaye vraiment gox bu nekk zone bu nekk war naa am benn poste de police bu fa nekk boo xam ne bii day aar dëkk boobee parce que nag état moo ñu war a sàmm sàmm suñu alal loolu muñ ci constitution bi dañ ñoo war a sàmm sàmmaale suñu alal waaw. moo yóbbu ci question bi mooy boobu. Mhm. ñu gis ne mhm. jamono yi ñuy bi euh, mi ngi mi ngi ci noppi nit ñi. Mhm. nga nekk euh, responsable politique. naka nga jàngatee li nga xamante ne moom moo jëm ci faux dañ jëm ci dañ dañ souligner ko gis ko nga xamante ne moom la man de dégg naa ko ci biir parti bi waaye xam nga présomption d'innocence day am ba buur wax comme moom mi ngi ci loxoy yoon yoon procureur defagul point de presse ne vraiment lii nii la demee nii la demee man dama koy jàppal présomption d'innocence am parce que nag moom sax démissionné na waaw démissionné na parce que bu démissionné wutoon toon tamit tam lii mu def liñ ne moo ko def mu def ko bu boobaa amatul immunité parlementaire parce que nag lu ne fàng nii kenn du ko jeex waaw police bu Sénégal jàppoon na lenn ci li mu dorog moo xamante ne dañ ko jàppoon mu jékki léegi nag loolu mhm. euh, nga askan wi ah bien sûr loolu kay ñëpp la jaaxal ñëpp la tiital mhm. parce que tamit nag euh, munoo jàpp yow yow jàpp moo gën a metti denc ah jàpp mhm. kii gi na ko nëbbee def ko ci ay suuf oto wala mu def ko ci noo xam ne ak oto bu doon trafic di jàll nga xam ne oto bi dëkku fi nga fexe ba jàpp ko ah loolu moo gën a metti denc ko kon nag ñoom ba cin bu foqul dëndut yax ba ca nekkoon bu ca jógee nañ ko laaj ka ko doon togg. ci lu wér ci ci lu wér d'accord foofu moom mhm. euh, tout bi lay ba tey gis nañ ne Touba jamono jàll far na ci benn jigéen violence faite des femmes mhm. euh, loolu euh, xam nga loolu moom dafa metti xadi sëy demoon naa fa mhm. mais lu metti la rek parce que violence bi nga xam ne dañ koy teg femme yi du femme boobu rek am na keneen ku ñu reyaat barki Dembo Ndiaye kañ reyoon ca Tamba rey yi dafa métti ci jigéen ñi loolu moom état bi moo war a jóg tëkki daan yu méttee métti su ci tegee daan yoo xam ne yii ku ko dégg di nga xam ne lii parce que léegi at yi dafa gaaw da nga naan 10 ans lay tëdd wala 15 ans lay tëdd mais bu fekkee ne dañ la def perturbé nga mu wóor la ne mii dootoo génn sa giru dund di xool li ngay def parce que violence yi ñuy teg femme yi femme yi ñoo gën a dañu dee ñetti yoon ba juróomi yoon ñun bu fekkee dañu rey sunu doom ñun ñooy souffrir ñun femmes yi bu dee dañu rey suñu jëkkër ñun ñooy souffrir ñun femmes yi en plus forte raison que ñuy rey dañu boole nag mosoo dem hôpital ba gis fa góor gu entré jabaram gisoo ko de bariwul de te jigéen ñi bu seen jëkkër feebare ñoo koy entré bu seen doom ñi feebare ñoo koy entré gisoo fi tamit doom koo xam ne doomam day feebar papa ji dem entré ji ko. toujours jigéen ñi ñoo koy def. kon ñun dañuy couche boo xam ne dañ ñoo war di. sàmm dañoo war di protégé ndax dañuy couche bu vulnérable bu néew doole. kon ñun dañoo war di ñu sàmm di ñu yërëm. mais nag bu ñu ci boolee di rey fa di faat faat faatee. loolu moom état bi ci war a jël ay mesures yoo xam ne yi ku ko def dootoo ko defaat. dootoo ko defaat waaw. wala ba tey rek ñu sukkandikoo charia li mu wax. ku rey nit ñu rey la. ah su ko defee. Hmm. yow nga dem àjjana. Hmm. Ah. macha allah ndaxte dekk day am de. Hmm. il faut que ñu gëm ne. Hmm. buñ deewee dañuy dekkiwaat. lu waaye def da nga ko defaat te ku dee dañ lay ber. dañ lay ber ci lu wér. ah hmm. te bu bisu dekki ba tamit nanga ko xalaat. day am de. day am macha allah bisu dekki ba day ñëwaat. kon nag ku rey dañ laa war a faat say mbokk sax ñoo war a d'accord ci mun ñu rey la. d'accord loolu xëy na li nga xamante ne damay daal di yóbbu ci mm. euh, actualité bi ñuy dund actuellement mm. muy mm. Euh, fi mu toll nii ñu ngi ci waxu ki nga xamante ne moom mooy Serigne Cheikhouna Gueye mm-hmm. ak daara yi nga xamante ne moom ci lañ wax lu mel ne jéng yu ñu demee mm-hmm. euh, actualité boobu noonu jëpp ci dongo daara bi nga xamante ne sëriñam daf ko jéngoon mm-hmm. ñu ñu yoon teg ko loxo naka nga ko jàngate en tant que en tant que en tant que ndey ko jàngate mooy métti lu ànd ak sëriñ daara yi di ko parce que man doomu daara la dañ naa ko ba daaru alimul xabir laa dëkk fi la ñuy jàngale fii la sëñ Touba defoon daara ñu ciy jàngal doomi sëriñ Touba yeeg doom yu baax yëpp ndaam muy ndaam mm-hmm. kon man doomu mm-hmm. ñu joxe woon ko ci sëñ Fall ko yor mm-hmm. ma nekk doomi dongo encore kon man mënuma lu may ànd ak sëriñ daara yi di ko ñaawlu et puis gis nga jéng boobu ñu jéng xale boobu man def naa ci une émission temps yi passé man je suis pour ñu jéng xale yi ci lu wér parce que xale yi ñu ñu nangut jàng bëgg a jóge ca daara ja dem taxawaalu ji. taxawaalu ji boo ko jéngut. Mm. bu lëggee ci ceen lay mujj. ci lu yaay boo ko jéngut. Mm-hmm. prison lay mujj. Mm-hmm. te prison la ñuy dund prison moo gën a pire que li dund ci daara yi nañ ko wax. nañ dañ ko bañ a wax rek mais la ñuy dund prison ba. ñu génn prison télévision ba bu set guy mari ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ku génn na jàppale waa man bi ma nekkee député. kon nekk commission commission des lois. Mhm. àndoon naa ak le maître Babou. Mhm. Ablaye Babou mu nekkoon président sama papa mhm. mu nekkoon président commission ba ñu dem ci biir kaso yi xooli kaso yi ni mu demee. amélioration bi sax ñun ci ñun la yokk ko. ci lañ yokkee dépense yi xaw a jëndalaat ay matelas ay kii xaw a defaraat. mais ba tey doyut. parce am na ci chambre yoo xam ne la fa nekk ci ay nit. ci ni ñu ko waxee. jaaduwut métti na trop métti na trop. bu dee affaire humanisme la ñuy wax. Mm-hmm. humanité bi la ñuy la ñuy topp. Mm-hmm. mais nañ dem lijjanti ay ponk li yàlla jëm xam nga xale xamagul dara. Ah te boo ko jubbantiwul du nekkee xale bu magee bu dëngee doo ci mënati dara. Ah kon nañ dem ca mag ñee nga xam ne. Mm-hmm. dañu sonn coono boo xam ne am na ñu deful dara ne fa. am na ñoo xam ne erreur moo leen fa yóbbu am ñoo xam ne dañoo juum dem fa. am ñoo xam ne ñii dañ leen faa yóbbu te xamuñ sax lañ def. defuñu dara. mais xëy na nañ leen nañ tontoo du noonu wala nañ leen jiiñ te excès buñ ci leeral ko ñu dem tëddi fa mm-hmm. kon war nañoo améliorer foofa te mm-hmm. bàyyi daara yi ñuy wax gis nga daara bi état bi ba mu commencé di wax daara moderne mm-hmm. man je suis avec l'état de mais ba mu commencé di wax daara moderne bañ ko commencé di def bu doon at mu jot ñu defar juróomi daara moderne at mu jot ñu def juróomi daara moderne kon li ñuy wax wàññeeku na ma dolli la ci beneen gis nga euh, xale yi di taxawaalu ci mbedd bi man sunu koñ bii des na tuuti xale boo fi woo ne ko dongo kaay boo ko boo ko nee noo tudd bu la wax bu la waxee turam nga xam ne dëkku ci dëkk bi. ci lu wér ah, loolu am na loolu dëkkuñu fi dañ koy remarqué dëkkuñu fi mm-hmm. Mm-hmm. ñi fi dëkk nag di jàng ñu yóbbu leen ca daara yi am na ci ñoo xam ne ñoo mën a mm-hmm. seeni doom dañu leen a bàyyi ba a mënaluñu leen dara ñëw yët leen sëriñ bi ah te nag yow laa yaakaar tanewuma la du waxam ci lu wér il faut nga jéem ci dara yow mi sëriñ bi ci lu que yow yaa opté ne da liggéey ci doomu aadama yi ci ngay liggéeyal yàlla kon ku ñëw bëgg jaaxal ay mbokk wala wuta mbokk mu indi ko di nga ci jéem dara ci li nga koy génne nag mooy nga punir ko te gis nga punition mënul ñàkk. xale il faut ñu di ko punir. ñu ngay punir xale bi pour mu ëllëgee li nga ko tere woon du ko defaat. sëñ Cheikhouna di bokk ak moom rek euh, te lii sax du métit mottali liggéey rek la ndax euh, yàlla moo yéen ñi jàng yéen ne yàlla moo ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale waaw mi ngi noonu. kon moom mi nga xam ne dafa jàng alxuraan ba pare mënoon a dem defi leneen mu toog di ko dugal ci ay boppi xale pour ëllëg si biir ñu nekk nit ñu baax kon lii ko dal man naa ne du nattu liggéey bu ko yàlla liggéey loolu rek mu jaarale ko foofu ndax Sëñ Tuubaa jàppoon nañ ko kon da ciy barkeelu rek te li ci des tamit ñun nii la ñun jigéen ñi gis nga da ngay gis koo xam ne doomam day kii mu ne ah baax na ba nga dem ca daara ja ah doom na cëpp cëpp mu waa kii bàyyi ko rek ba dem daara léegi xale bi day xalaat ci boppam daara ja lan moom lan lañ ma fay def daara ja lan moom fa nekk hmm? nañ bàyyi xale yi ñuy yàq seen bopp yi ci ba nga dem daara ba nga dem daara te demaguñ daara léegi tey tax bis buy dem daara day tiit parce que day xalaat ne daara dañ ko doon wax naan ko nga dem daara ba nga dem daara daara leneen la fa nekk daara seen l'enfer lay xalaat te fekk du loolu nañ bàyyi xale yi ñuy xëbal ak di leen tiital naa leen ba ngeen dem daara te sa doom buy dem daara aussi nga bañ a jël sagar ya defal ko ca gaal gu weñ ga nga buy dem daara nga topp toppatoo ko jël ko gindal ko ay kilot yu rafet ay t-shirt yu xam pour tàngaay yu rafet gindal ko ay dàll fermé gindal ko ay dàll carax mu gis ne yow mii defal nga ko yooyu yëpp jël beñeem defal ko ci gisa man sama sët buy dem daara ja mi ngi fii di ma dégg damay jënd élastique daal di koy takkal euh, caabi ji nga xam ne mooy ubbi gaal gi ndax takkal ko ko ci baat bi mu kontaan si ma ne ko léegi sa yëfan ci biir gaal gi ñoom bu ñu demee sax seen daara dañuy jël yëpp boole ko ndax imaam euh, ki leen di jàngal oustaz Mouhamed Seck yàlla na ko yàlla dolli wér danaan daan xale yi bëggul ñuy beru ku indi beñe wala nga indi biscuit da ngay jël lépp jox ko ñoom bu ngoonee ñi nga xam ne amuñu te nekk fa ñi am di leen ma sédd xam nga loolu lu baax la léegi nag sa doom buy dem danga koy waajal gindal ko li nga ko war a gindal waaye buy dem nga jël sagar ya jox ko ah tey yére yu baax ya jël daa benn peeru dàll ba jox ko téye dàll ya ci des bu ñëwee mu manqué ko da koy maye da nga koy jox ay dàllam jox ko léppam jox ko yére sedd bu dee sedd dafa jot bu ëllëgee ngay seeti sa doom ca daara ja même bu dee da nga koy jox te joxe woo ko internat boo toogee juróom-benni weer demal nga seeti sa doom ah boo ko xoolee ba bañ koo bàyyi ak sëriñ daara ba sëriñ daara dañoo sonn ah gis nga maam man ko man ko mos a dégg ci maam xaali jaxate benn émission ma di ko wax bu yàgg ba dañ daan bay du dunde léegi bayatuñu ku jël sa téeméeri jox doom nag ay nit ki jël doomam kee jël doom ba muy téeméeri nga jox ko benn sëñ daara sëñ daara ba liggéeyul dara léegi nu muy def ah il faut que xale yi yalwaani yalwaan noonu am na ñoo xam ne sax yalwaan bi ñu leen di yalwaan loo pour dindi rëy ci ñoom la ba dootuñu rëy dootu xam ne ndax boo jëlee maafe boole ko mbaxal boole ko kii bu ëllëgee loo gis mën caawee xam nga ñi nga xam ne dañuy këpp kees yeeg di lekk xaalis jàmbur yëpp jógewuñ ca daara ja de li ma leen wax ne leen milliardaires yi nga gis ci dëkk bii ak yeneen dëkk yi milliardaires yoo teg quatre-vingt-dix-huit milliardaires yi ay doomi daara lañ waaye ñi fi satal seen xaalis këppoowuñu kees lekkuñu alal askan wi ami milliard bëriwut te du doomi daara daara lu am solo la nañ bàyyi sëriñ daara ñu jàngale jëng éducation la dafa bokk ci éducation ndax xale yi nangoo jàng nangoo toog kenn jëngu leen mais boo ko jëngee ne ko boo ma tekkee jëng bi ndax di nga toog mu ne la waaw mu tekki jëng bi nga toog nga ba mu toog beneen xale du bëgg a def loolu ndax day xalaat na dañ koy jéng waaye buñ ne bu kenn jéng bu kenn dóor xale dañuy seetaan télé li ñuy wax ci télé bi yëpp xale yaa ngi koy gis dañuy ku ci bëgg a të ngay kii di daw ak te boo dawee di am geneen kilifa goo xam ne gii la la sëriñ lay teg sëriñ daara ba daaw la ko teg dina la yalwaan loolu dina lañ la dóor dinañ la lu metti nga taseeg mag mu sàggan mu jàpp ndax dégg nga pédophile yi ñuy wax ci xale yi temps yëpp ñu ngi wax ci xale yi lu bon yi leen di def mooy ña dawee ca daara nañ bàyyi sëriñ si ñu téye xale yi ci daara yi ak niñ leen mën a téye seen façon téye macha allah loolu loolu am na solo ndax euh, tontu mel noonu laa doon xaar ci yow ndax mhm. euh, xëy na ndey jaboot nga waaye li jiitu loolu lépp jullit nga mhm. kon tontu nga tontu boo xamante ne mhm. euh, ku gis xam ne jullit dëgg moo tontu ci tontu bi nga xamante ne foofu lañ ko doon xaaree ñu duggaat ci ba tey ci dëkk bi ak réew mi sax laay wax ñu gis ne gouvernement bi dafa nësëra yokk courant bi loolu tamit am askan bi tamit naqarlu nañ ko trop trop trop trop trop ndax nga tane ñu ci yow bi nga xamante ne député nga lan wax parce que déggoon naa temps yi passé ñu ci gafaka as gafaka réew mi mhm. yokkal ko courant bi mhm. muy lu baax lu ñu tàccu mhm. mais nag réew moo xam nga ne xam nee nañu pétrole feeñ na fa gaz feeñ na fa xëy na lañ ko exploité gul moo tax mais nag ñoom ñi nga xam ne ñoo yor courant bi dañoo war a génn leeral ñu lu tax ñu di ko yokk ah. parce que bu dee euh, dañuy perte ñoom. Mm-hmm. am na fu seen xaalis di dugg nañ ko seetaat. nañ ko seetaat mm-hmm. waaye ñi ngi lor ñoo xam ne seen yoon new ci. Mm-hmm. parce que am na ay industrie yoo xam ne yi wala ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi utiliser courant bi d'une manière jaarul ci yoon. ba pare ñeneen ñi di ko fay. Ah te lool day metti ci ñi koy fay. te te defuñu ko. am na ñoo xam ne kër yoo xam ne boo fa duggee lampe yi du fay dara du fay te la war a fay ci courant fayuñu ko. ak ñoom ñuy liggéey Senelec nag. seeni kër. Hmm. ay congélateur lépp a nga fa te duñ fay courant ñun ñoo leen di fayal courant. Ah, kon nag bu ñuy waaw maa ko wax. loolu de ñii liggéey Senelec ñii liggéey Senelec ñu courant de li ñuy kër goo dugg ay ñaari congélateur ñi ñoo ci xam ñuy jaay ay glace ak yooyu. Hmm. ay congélateur nga seen kër ak yeneen ak yeneen. dëgg la nag koo fees loo yaa ko yàppaloo. Ah. war na mais am na lu ñu leen di may xëy na ñuy fay li ci des. Hmm. mais nag ñi nga xam ne ñun ñii nga xam ne ñun ay néew gi doole lañ di fay courant. Hmm. buñ ko yokkaatee ñun te waxul ñu li tax ñu di ko yokk. Hmm. ñun dina metti ci ñun. ci lu wér nan ñu wax li ko yokk ba li tax ñoom ñu di ko yokk. Hmm. te seetaat bu baax. industrie yi xëy seetaat yu ñu mag ñi. ba xam ni ñu utiliser courant bi ñu ngi koy fay wala fayuñu ko lool soog ñu di ko yokk ñu koy soog yokk. loolu am na solo ñu dugg sa diggante euh, sa relation ak monsieur le maire bu Touba Abdou Lahad Ka. ndax am ngeen relation war a tax yéen ñaar. vraiment sama xarit la. Abdou Lahad man sama xarit la te it nag wax dëgg yàlla bi mu nekkee ci mairie bi laay soog a dugg ci biir mairie bi ci laa xamee mairie bi kon sama xarit la kon ki jege mën na man a wax dara jëm ci ci nit ki ah. Ah, jamono yi ñu jàll ñu gis ne am na benn euh, agression bu ñu waxoon ne dañ ko amoon loon ci këram mhm. euh, di ba léegi dara dugg rek ci insécurité bi mhm. muy ay bali fital yu ñu teexoon jëmee ci këram mhm. ah, loolu nan nga koy jàngate yow non di ko ñaawlu rek parce que nag loolu sax moom dafa jaaduwut ndax violence moom daf baaxul ci benn côté ci lu wér mhm. violence moom dama koy condamné mhm. waaw ndax violence moom baaxul ci benn côté waaw Abdoulaye li tax gestion man duma ci jéem dara duma ci xool dara parce que laajuñ ma bañ ma bañ koy fal laajuñu ma sama avis parce que néewuñ ma ndax Abdoulaat ak kii kaw koo ci woteel ba ma woteel ki xam nga bu ma woteelee Abdoulaat mm-hmm. kon man ci ñi ko kii laa bokk su ma ko woteelut ma xam ne dama ko contrôle yàlla moo ko ñeneen ñoo ko woteel ba mu gagné mm-hmm. mais comme laajuñ ma ci son sama avis mm-hmm. sëriñ bi moo xool ki ko neex mu teg ko ci postam man lu mu def dama ci ànd danga ciy ànd waaw macha allah dinaa bëgg nag mu am na it lu ma luñ ma wan ndax war nañ ma benn euh, kii benn seede benn seede boo xam ne wax dëgg yàlla lim liggéey lépp a ngi ci biir seede bi. Mhm. kon munuma lu may rafetlu. Mhm. ndax xaw ma budget mosuma fekkee it fu ñuy wate seen budget damay dégg rek ñu naan budget Touba lii la wala laa la. Mhm. te it Touba chargé a màggal yoo xam ne. man Ibrahima Sarr mos na ma ko laaj bi ma nekkee député man dama ñaata ñaata màggal ngeen ma ne ko 365 jours la année mu ne ah ma kon am nañ 364 màggal. <laughs> <laughs> mais te it yëpp bi dina ci participer. aw ma lu ma ci wax. ci lu wér d' loolu ba tey am nga ci droit mooy lu jëm ci wàllum euh, sa digganteeg moom. Euh, ah. xay na wax nga ci sa wax ne. Euh, relation bu rafet rek ngeen am. am te bi mu ci maire bi laa dugg ci maire bi. Ah. te it sama wax dëgg yàlla sama xarit la. Mhm. j'assume léegi li jëm ci wàllum léegi chef de village yi ñu fal ci mhm. biir euh, Touba euh, ndaxam ñoom itam jotut ñu defal leen li nga xamante ne moom mooy conseiller bu ñuy amal seen biir nga xamante ne dañ leen koy organiser formation formation yoo xamante dañ koy def seen bureau yu mel noonu ba nga xam ne nag danañ gën a xam bu baax a baax liñ leen dénk est-ce que tamit yaakaar nga leen lu war a am la ah chef de village Touba de xanaa chef de quartier chef de quartier Touba <laughs> ay chef de village lañ 74 xaw ma 76 villages a ngi fi 76 mm. mm. mi ngi fi mi ngi ci Touba mm. te bu ci nekk am na ku ko jiite. Mhm. Ah, mais li ma la waxoon ci laaj ka rek laa lay wax. Mhm. comme man loolu luñ ma ci laaj sama abi te mënu ma cee gerew mënu ma cee takk mhm. morso bu xonq. te ji xaw ma li ñuy liggéey wax dëgg xaw ma li ñuy liggéey. xaw ma lan mooy seen prérogative. fu mu commencé ak fu mu yem kon. <laughs> d'accord soxna Aïda Gaye ak politique actuellement say actualité ci politique bi lan la doon ci lan nga sumb ci lan nga sumb wala bokk ci lan nga dënmal fi mu non fi mu ne nii moom. daanaka temps yi moom li ëpp ci lu may def mooy développement. développement parce que dama yor benn réseau boo xam ne mille huit mille six cent femmes a ngi ci. Mhm. ñu adhéré. maanaam ci ñuy déggul wala ñi déggul français. junni ak juróom-benn téeméer. Mhm. ay jigéen ñoo xam ne adhéré nañ ba pare. Mhm. boo boo pare ma woon la seen carte yi ñoom ñëpp. ak nu ñu ko kii yoo xam ne muy réseau boo xam ne. tey jii am na ñenn ñi ñu jàngal nañ leen cuub. ñenn ñi jàngal nañ leen nu ñu defaree euh, cere ak kii ba du yàqu. Mm-hmm. ñenn ñi defar ñu ngi defar saabu ñenn ñi ñu ngi defar eau de javel. Mm-hmm. ñenn ñi kenn ku ne daal uta defal nañ la formation. Mm-hmm. léegi nag fi mu ne nii sama objectif mooy am benn lu mel ni benn boutique boo xam ne bii. ñoom kenn ku ne loo liggéey dañ ko fa indi di ko fa exposé di ko fa jaay ñu benn xale bu fa nekk di ko jaay bu ñu weer deewee kenn ku ne xool li nga indi woon li ci jar nga dem defaraat indiwaat suñ ko mënee importe exporté tamit ñu di ko exporter temps yi daal loolu mooy sama. ci laa nekk bu baax a baax mm. euh, monsieur président de la République du Sénégal son excellence Abdou. Euh, Macky Sall mm-hmm. ñëw na fan yi ñu tubaa Touba euh, fi Kayal gisante ngeen wala. waa nuyu naa ko. nuyante nañ vraiment. d'accord loolu xam nga Macky moom. Mm-hmm. sama frère la sama amee sama xarit la. Mm-hmm. fu ma gis dina ma tooñ dina mu nuyu dina waxtaan ak man. waaw loolu nag lu yàgg la. yàgg la parce que nag 96 laa xam Macky. kon ngaw avant. mi nekk avant 96 sax xam naa ko mais 96 laa njëkk a fanaan këram. Mm. seen kër mm. Fatick. Fatick muy bañ koy mont ba ñuy monter fédération Fatick. Mm. loolu yàgg na. yaa yàgg na. kon yàgg na ma ak moom mm-hmm. te du lii boole wuñu actualité bi gën a fes ci politique jamono ñu toll ci diggante Touba ak mooy lu jëm ci wàllum élevage bi ñu génn muy muy journée boobu mm-hmm. bi nga demee ci assister loolu di programme boobu ñu doon def ndaxam am nga fa jàngat yoo fa jàngee yoo xamante ne gis nga ni lii euh, lan moo ci sa xalaat waaw waaw bi moom dafa dox te man mm-hmm. macha allah dama ko bëgg sama xol parce que man xam nga damay euh, yari ginaar awi ah, ah awi ah, ah am naa poulailler boo xam ne bii màggal gi passé ginaar. Mhm. te loolu tamit ci kii bi la bokk. ci la bokk ci élevage la bokk élevage waaw. Mhm. bu ma sañoon tamit bëgg naa tamit dugg ci xar yi damaa amagul xaalis waaye bëgg naa dugg ci xar yeeg nag yi ndax xam naa ne élevage man dama ko bëggal sama bopp waxuma la lu muy eh, lu may koom-koom bi mais dama ko bëgg day lu ma bëggal sama bopp te it eh, am na tamit point yu ci def mhm. ndaxte eh, defal na leen subvention ci lu du lu dund bi dund xont bi xont bi def na ci subvention vol de bétail bi. waaw loolu loolu loolu lañ ci wax. lu lu lu lu lu lu lu yàgg luñ ko yàgg bëgg la éleveurs yi. ci lu wér ci lu wér ba pare dama bokk ci benn mbootaay boo xam ne Serigne Fallou Mbacke le président du conseil départemental moo ko fi woon. Mhm. muy ay bëy yoo xam ne bëy de race la yu qualité. Mhm. yoo xam ne day dem ba nga xam ne soow mi dañ ciy defar fromage di ci defar saabu. ah oui mhm. yooyu tamit ñu ngi fi gis nga bëy yooyu. tey jii bëy bu ci nekk da nga am carte d'identité. boo demoon bi. buñ sa bu buuk bi ñu la takkal. Mm-hmm. dinañ xam ne béy bi mm-hmm. diwa ko moom. waaw ah, loolu de avancement identification xam nga loolu tamit avancé la. away ah ah parce que tamit sàccum bu woon a sàccum jur gi. Mm-hmm. nii tabaski yi méttee du ni méttee. du méttee du mais nag sàccum jur gi moo waral tabaski yi diis ndax kenn mënu mëntul denc. ndax ku denc sa béy ñu ñëw jël ku denc sa xaar ñu ñëw jël. vraiment criminalisation boobu mu ko def tamit. nit ñi salué nañ ko lool. waaw d'accord ci sa acte ci sa carrière politique. lan nga ci mës a dund loo xamante ne neex na la bëgg yëg neex na la non loolu moom bari na parce que nga nit ki am problème ñoo wax la ko mm. nga sol sa dàll te politique bi mm. ndomb bi nga takk mm. moo tax nga mën a régler lii mais bu woon ndomb bi nga takk doo ko mën a régler nga ànd ak moom régler loolu loolu neex na lu neex la mm-hmm. waaw sens contraire bi bi nga li nga gën a dund ci euh, politique bi lu la naqari ba nga tëdd xalaat ko ne lii naqari na la bëri na ba tey loolu tamit bëri na ndax ku dafa am ay ku baa am ay pot de yu lay lalal ba ba may jóge PDS rek naqar laa fa jëlee. Hmm. waaw naqar moo ma jëlee PDS. mais du question naqaru mel na la woon ndax. naqar parce que euh, naqari na ma mais dama xalaat ne aussi dogal yàlla bee ci ànd. Hmm. parce que lu nit mu def mu sotti rek da fekk dogal yàlla bi ànd ci. ci wér wér waaw sama génn PDS. du hmm. ni ma génne PDS neexu ma. mais nag dama xalaat ne dogal bi noonu la parce que nit ki li loo xëy am ko rek sante ko yàlla. ci wér. te mu ànd ak wér ak sa bakkan ak sa bakkanu njaboot rek santal yàlla. Hmm. mais naxar moom ak bànneex. Hmm. ci politique lépp hmm. parce que politique ngay ànd ak nit ki tey. muy sa xaritu benn bakkan suba mu nekk sa noonu. politique ngay ànd ak nit ki muy sa noonu tey jii suba mu ngeen ëlbatiku mu nekk sa xarit. dafa tëradi daal dafa tëradi. moo tax bul ne dara mënul nekk ci politique. bul wax loolu loolu daf may yóbbu ci sa laa jëmee sa moroomi jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir département bi euh, ndaxam am am nga ci xarit boo xamante ne sa xarit la ci ci politicien yi. non dëgg la parce que am naa ci koo ñoo xam ne ñii politique boletuma ñoom sax. Mm-hmm. parce que am naa ko may àndal chaque jour guddeeg bëccëg madame Mbacke. madame Mbacke waaw léegi ay xarit lañu. Mm-hmm. nekk politique du moo ñu boole mais ay xarit lañu. Mm-hmm. am naa yeneen xarit yoo xam ne ci politique bi parce que man mosuma def lu ñaaw ci politique nag. loolu day ak may lay doon man fàttaliku ma foo xam ne fii damaa def lu ñaaw ci politique déedéet mm-hmm. wala man dara rek xeex doole bi ma xeexe la ko mm-hmm. man déedéet man bi ma fi nekkee responsable dafa am jigéen ñëpp mën nañ ma seede su Abdoulaye Wade moo saan ñëw fii ci dëkk bi président Wade mm-hmm. sama baay sama xarit ma ko sama xol muy le président Wade bu ma saan fii ci dëkk bi sama liste laay defar jigéen ñëpp dama leen di dugal ñu dugg toog waxtaan ak moom su ma ko mënul jaral na ma bis boobu ma génn dem ñibbi bi ma jiitee jigéen ñi jigéen ñi bi ma leen jiitee ci télévision laay wax ñëpp di ma gis. amul lu ma daan séddale mu luus. niñ ma ko joxe laay bind ci kay ñëw ñu toog ñëpp toog ma na leen lii lañ ma jox mi ngi nii. ñu séddale ko nu ko nu mu jaadoo kenn ku ne jël sa wàll. kenn ku ne jël sa wàll. léegi élection locale yi nga xamante ne ñu ngi ci waaj jëm nii. Mhm. Euh, fomm nañ ko. da ma wax ci sama xarit am naa xarit boo xam ne fi mu ne nii mi ngi APR maa ngi APR muy Soda Dieng. Ah, sama ba sama bàjjan. Soda waaw sama bàjjan démb ci guddi rek jaar naa place. gis nga Soda. sama sama na ma doom. man mm-hmm. ndeyale naa ko doom. isaan moom musul politique. Uh-huh. mu nekk APR man ma nekk PDS musuñ jotee dara. sama ñun continuer sunu xarit. Mm-hmm. ba tey jii. macha allah ak ñeneen ak ñi nga xam ne dama àndoon ak ñoom depuis 96 ba léegi mm-hmm. ak ñi ma amaatoon ci diggante bi mm-hmm. te man bàyyi ci kenn parce que man bu ma def lu ñaaw mm-hmm. Ah. la ci man bàjjan la ci man waaw maa a ne sama mbokk la sax la moo jege waaw picc picc yi nuroo dunq rek ñooy naawandoo waaw ci lu wér du ma man du ma def lu ñaaw ci politique bëgguma ko parce que damaa xalaat ne fii laa dëkk am fi ay doom ba am fi ay sët léegi mhm. sama sët yooyu fii lañ bëgg nekk ba ilaa yow mi diini ba mu fi jóge mhm. li ma la wax ne la taalibe sëriñ Tuubaa bi laa bëgg a deewaale mhm. mais bëgguma deewaale ay leneen pour loolu moo ma ñor ba tax na bëgguma fee def loo xam ne dañ koy fàttaliku ëllëg bu ëllëgee may am gàcc. macha allah ku wax jëme ci li nga xam ne que moom mooy euh, élection locale dama ko dama ko tëboon sànq. ñu ngi koy ñu dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko ko fommoon. léegi ci kan moo ci avantage su euh, opposition bi wala pouvoir bi. ñoom ñëpp seen avantage la parce que élection day toll foo xam ne fii ndax muy opposition bi ñoom bu ñu demoon élection yi mënuñu woon. Mm-hmm. Mm-hmm. et puis élection biñ dugalee waxtaan dañuy waxtaan. Mm-hmm. diggante bi ni mu gàtteeg élection yi ah, we te élection. biñ ko préparé six mois. kon élection yi ñoom. opposition bi dañ doon wax rek ne jekkuñu. jekkuñu woon jekkuñu woon. élection yi jógee bërki démb bëgg a demaat yeneen élection ñoom jekkuñu woon. Hmm. léegi est-ce que tamit ci réew mi euh, ndóol gi ñu euh, na daan doole yi wala boobu ñi nga xamante ne ay ay ay way way way way kii lañ dañuy xëy rek di sabablu metti gi dëkk bi metti ndax am yéen itam di ngeen toog di xool ay solution yoo xamante ne mi ngi mi ngi dana jëmale dana dana dana gën a kii. Euh, vraiment état baa ngi ci nag. Hmm. xam nga tamit li gën a metti mooy gars yi dañoo dañoo war a dem liggéeyi. Hmm. dañoo war a dem liggéeyi. Mm-hmm. gis nga ko liggéey. Mm-hmm. yàlla jox la sa wërsëg. Mm-hmm. mais bëgg a tëdd bëgg a faj soxla. wala bëgg a tëdd am xaalis. vraiment mënul ànd ak nu réew mi neex neex rek yow dina am fu dina xëy dina xëy metti ci sa côté. xëy fu metti waaw. Euh, troisième mandat bi bu fekkee sañ naa ci dugg. Euh, naka nga ko jàngate ba war na mën a nekk wala warut mën a nekk lan mooy sa gis-gis yow. xam nga troisième mandat bi bu dee ci yoon. ci constitution bi. le président Wade waxoon rek laay wax ba tey man. Mhm. constitution bi li mu maye. Mhm. mooy bi nga xam ne bi nga bi nga parce que mandat bi mi ngi commencé ci bi mu defee consti bi mu defee référendum bi. Mhm. kon mandat cinq ans bii la. ak beneen bu cinq ans. parce loolu la président Wade waxoon man ci loolu laa jàpp ci yoon. moom nag mooy xool bu fekkee ne ba mu ba da ko cee boole. ah baax na su ko ci boolewut tamit. bu ko laajee c'est légitime. c'est légitim pour ñu jox waaw c'est légitime. ma nag. nit ñi moom moo xam nag dina ko laaj wala du ko laaj. Hmm. mais su ko laajee tamit c'est légitime. c'est légitime ñu jox ko. parce que ci ci ci droit laa lay wax. Hmm. te maa ko déglu ci professeur bu ko wax ci télévision bi. Hmm. mu ne bi mu defee référendum bi mandat bi mooy mandat bu njëkk bi. parce que sept ans bi moom bokk ci woon. ah bokk ci woon kon kon référendum bi la commencé. référendum bi ci la commencé mandat bi mooy cinq premier mandat. kon bii bu fekkee ne day laaj beneen mooy deuxième mandat. Ah. moom nag moo xam ndax day wala laaju day dem. moo xam tamit day xool ba xam bële la commencé. wala bii la commencé loolu moom moom la affaire boppam la. Mm-hmm. moom dañ koo war a xaar ba journaliste dañoo ko war a kii fenn nag laaj ko ko. Mm-hmm. parce que il est temps nag mu wax ko. mu wax ko waaw waaw loolu tamit ba tey bëgg nañu askan wi tamit. gën a leeral parce que gën a leer ñun moom li ñu ñor. mooy ndaxte duñ koy dañ naan defoon na ñaari mandat defoon na ñaari mandat rek. Mm-hmm. mais bu ko laajee tamit c'est légitime. pour mu kii ko. waaw ci li léegi mu mel ne tamit lu jëm ci wàllum waxuma ma man na ko laaj moom man waxuma na ko laaj dama ne c'est ko a laaj ko mm-hmm. su moom yàlla ñuy wax rek mooy mm-hmm. ah ku ko mën di jiite rek yàlla na ko jiite ci jàmm yàlla na ko jiite ci euh, réew mi gën a naat waaw sant yàlla de sant yàlla parce que jàmm ji fi am buñ ko xeeb mm-hmm. te buñu mais nag sëñ Abdou Lahad Mbacké mu baax ma newoon na Sénégal gii ku fi indi ay tamit da koy këppoo ni monaat këppoob këllam kon nañu ñaan jàmm parce que boo xoolee ci réew yi ñu wër soxla bu dee ñaar rek jàmm am soxla bu dee ñaar rek jàmm am mais gis na bu jàmm amut dootoo bëgg lu weesu jàmm jàmm ah loo ko jëndee loolu moom jar ëpp la paix sociale <laughs> n'a pas de prix donc sunu yaay mu mel ne tamit dañuy daal duggaat ci sa relation ak sa mbokki politiciens yi ba tey mm-hmm. Mm-hmm. ndax xam euh, ci ñi nga yaa ngi am nga ci ñoo xamante ne yaa ngi lëngoo ak ñoom ci sa wàllu liggéey wala mm-hmm. waaw loolu liggéeyu politique moom euh, ndax man politique kenn du ci sama sëriñ. Hmm. politique. Hmm. kenn du ci sama sëriñ ci politique. ah kon kenn du moom. Hmm. ñi ñi may politique andool kenn du ci sama kilifa. man moom sama kilifa bopp la mën naa ànd ak nit nag. ñu ànd xaritoo ni di dem mais politique. kenn du ci sama kilifa. waaw. waaw ah, kenn du sa politique euh, kenn du sa kilifa kon euh, ñi ngi euh, fàttali mbokki téléspectateurs yi seetaan seen site internet Rafah TV ne leen ngi bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy baatu askan wi ah, tey ñu dalal suñu yaay maire Aïda Gaye ancien député wala bokk man moom député laa koy def ba léegi parce que <laughs> mi ngi xuus ci li nga xamante ne moom mooy askanu askan wi seen njariñ ci la nekk uh-huh. loolu moom lañ dalal tey yi ngir fas yéene waxtaan ak moom jëmee ci li nga xamante ne moom mooy actualité yi uh-huh. waxtaan ak moom tamit jëmee ci li nga xamante ne moom mooy doxalinu jamono fi mu toll nii Sénégal yaakaar nañ ne li nga xamante ne moom mooy li ñu gën di waxtaane moom moo jëm ci wàllu fi mu toll nii daara yi ba tey dama ci duggaat ndax am nga benn solution boo xamante ne moom ngay proposé par rapport ak ñi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dañuy contre di jëng nga xamante ne solution boo leen jox yow xam nga gis nga ñoom bu naan le droit de l'enfant gis nga ñoom ñoo bafoué droit de l'enfant mhm. ñoom ñoo ko bafoué mhm. parce que tous les enfants mhm. doom ju juddu rek da am droit jàng tous les enfants nag ont le droit d'être étudiés yaa ngi dégg mm-hmm. ñoom nag ñoo bafoué droit yi enfants yi parce que fañ ko bafoué dafa yàgg mm-hmm. ndax ñoom da ngay gis da ngay dëkk ci sa appartement gis ku góor wala ku jigéen ku dëkk ci appartement ngeen di kéyante ba takkante mm-hmm. ah am doom doom jooju bu juddoo du jug doom ja gën ca doom ya gis nga li ñu fi bàyyi woon démb ak barki démb ku ko fi bàyyi tamit di nga ci gis boo ko gisu tey bu subaa nga gis ci lu la naqari ci wér yaa ngi dégg bi ci des. c' est l' état. c' est mm-hmm. dafa jël quarante pour cent du budget de l' état. Mm-hmm. muy soma dërëm sa dërëm. Mm-hmm. su impôt. yow da ngay cotiser man may cotiser ndax boo jëndee almet état am na ki dara. nga jënd socc état am na ki dàll état am na ki dara loo jënd rek état am na ki dara. xaalis boobu lay jël mooy budget bi. comme dafa jël quarante pour cent ci budget bi nag di ko jëmale ci mu njàng. kon njàng yi ñëpp war a bokk. ko war a bokk. bu doon chaque année mu génne lu mat vingt milliards dugal ko ci école bi ci ne daara yi dem leen ngeen forme euh, kii def nañ ko ñoom El Hadj Ndiaye sëñ Seex Seex Ndindeeg ñoom ñëpp mm. dañoo am nañ benn euh, kii boo xam ne daf leen lëkkale rabita bi waaw rabita bi mm-hmm. ak nano bi sax seen national benn waaye moo ko jiite xaw ma nan loo ak nan faal mm-hmm. ñooy président yeeg yooyu man xam naa leen ndax bi bi madame la ministre Awa Ndiaye nekkee euh, ministre de la culture mm-hmm. mas nañ maa boo ñëw fii ma ànd ak ñoom yóbbu leen ci Awa Ndiaye xam nañ leen te gis nga ñooñu bu ñu leen commencé woon jàppale hmm. yeneen sëriñ daara yi nga xam ne dañoo tokki seen kii ruq rek hmm. danañ génn dem pour ñu jàppale leen hmm. jàppale leen ci ma jël ko jël ko sama doom yi samay sët nga fa ak ñeneen ak ñeneen mais bu weer deewee kenn ku li nga am nga ko jox am na ñoo xam ne dañ ko jox dara ci lu wér ci lu wér lam am lay bokk ak ñoom xam nga loolu metti na ah? su doon état da koo secoué ci dara dina ko gën a yëg ndax ñuy ñuy jàngale dañ leen di fay. Hmm. élèves yi dañ leen tabaxal ba mu jekk. ah di fay ña leen di jàngal jox leen goûter. Hmm. ah, ah yow nag nga jël sa doom tamit am na ci loo xam ne responsabilité parent bi la. ci lu wér yow nga jël sa doom yóbbu ko ca daara ja. Hmm. yóbbaale woo ko yére doo ko yóbbu daal xam nga ne xale bu solee daal deux mois. day ràpp doo yóbbu daal doo yóbbu daal lu may bàyyi ko ca daara ja doo ko seeti doo xool ba xam ci lan la nekk. responsabilité bi mooy ñi nga xam ne dañoo fuite seen responsabilité hmm. parents yi hmm. am na ñoo xam ne bañ joxee seen doom ca daara ji lañ fa gëj duñ dimbali seen daara bi te xam nañ ne espace bu daara di bàyyee amatu fi hmm. ah, sëriñ daara bi jaayut jëndul dëgg la yàlla yàlla moom ku nekkal mu nekkal la du ko bàyyi waaye tamit sonn na waajur yi ñoo war ku yóbbu sa doom ci daara ji ba ci yàgg nga wut dara dem yót ko sëriñ daara ba nga jàppale sëriñ daara bi bu ko defee état bi tamit di seen kuréel googu. mu ñuy muy waxtaan ak ñoom xool ba xam naka la ñuy yore daara yi. gis nga bu ñu ko defoon bu woowoon borom sëriñ daara yi ñu ko ni ñu koy defee ñu ngi koy ñu ngi réunion réunion yi dul dakk chaque jour mais bu ñu réunion ñu dugal ñu commencé dara commencé di appliquer bu fekkee ne tey jii Touba gi seet nañu waaye nag sëriñ Mountakha yàlla na fi àgg te wér lii muy def nii bu yeggee mm-hmm. ah ñu gën a am yaakaar ci lu wér ndax xale bu xam nga li gën a metti mooy xale bu jàng ba am bac ñu yóbbu la université. Mm-hmm. état moo la doon fayal de. Mm-hmm. boo jàngee ba pare ñu yóbbu la université kon na di la fayal di la fay. di la fayal di la fay ci lu wér. Ah. loolu wax nga dëgg. léegi am na ñoo xam ne bu ñu amee njariñ dañuy dem euh, extérieur duñ dellusiwaat sax mm-hmm. fay état te buñ dellusiwaatee jàngale wuñ ngir yàlla dañuy jàngalewaat état du leen fayaat. lu am solo nga wax wala buñ jàngale wuñ ñuy def docteur wala leen avocat wala dara di leen ñu leen di fayaat. ñu leen di fayaat di leen fayaat. amul kenn ku ci def léegi nag sëriñ bi léegi. enseignement professionnel tamit war nañ ko yokk hmm. ndax xale yi nga xam ne dam dam ko daan wax chaque jour di euh, foofu maa ngi fi euh, remercier le ministre Moussa Sakho hmm. parce que bi mu ñëwee dafa daal di kayal gi mu dëkk dafa daal di defaraat enseigne kii euh, école formation professionnelle ba fa nekk hmm. defaraat bu Mbàkke bi ndax xale yi jóge ci daala ji ñoom ñoo nekk ñoo ñoom amuñu liggéey amuñu liggéey te nag bu fekkee ne continue nga say étude coranique sëñ Ahmadou Badri ñu koy ziare baax Mbacke. ah yàlla na fi yàgg te wér. amiin yaa rabbal <laughs> mais mi ngi fay ñoo xam ne am nañ ay licence ak ay ay ay ay kii ay lijaasa yu mag. Ah te mi ngi leen di fay par weer. Mm-hmm. pourtant jàng euh, fran ah, jàngul français de. Mm-hmm. te lijaasa yu rëy rëy yu bëree la am. Mm-hmm. yu bëri la sëñ Ahmad Badru am ak ñu mel ni moom. ñoo xam ne dañoo jàng fii dem jàngi Caire wala ñu jàngi Makka wala ñu jàngi Maroc ba am ay lijaasa yu bëri. te alxuraan lañ jàng. ci ah. wér boole kook fay gi lañ ci yàlla fay. macha allah ñoom nag comme ñoo opté nag defar nit ñi ah ah lu leen ci lu leen ci dal rek nañ ko jëlaat teg ko ci boobu hmm. ci yàlla mi nga xam ne hmm. ñoom moom la ñuy liggéey sëriñ Baare boobu ñu téye maa ngi ñaan yàlla mu génn mais xam naa ne hmm. amu ci am na ci xol bu sedd ndax day xam ne lii mott li eh, lu mu doon def rek yàlla di ko gën a fay loolu moo ko yóbbu ci prison ba ndax reyul nit jaayul dorog deful dara lu buur di bañ macha allah xale bu nar a bon mu di ko jubbanti moo ko yóbbu fa mu nekk kon nag fa mu nekk dina fa am xel mu dal. Mm. parce que dina fa gis ku mel ni moom. Mm. te leneen la ko fa yóbbu. ci lu wér sax gis nañ ne askan wi sax buñ ciy wax da gis ku ciy wax rek xol la ciy waxee. mais bien sûr ñëpp dañ ko. parce que dafa metti mm-hmm. Mm-hmm. parce que dafa metti ci doomu daara. Mm-hmm. ndax dangay wax xam ne kii kenn fayu ko wer. dafa opté liggéeyal yàlla ci doomu aadama yi. macha allah ah opté boobu loolu nag bu ko bëggee jural leneen. day metti day metti mais nag yàlla aussi. dina ko fay dina ko fay léegi dugg ci relation bi nga xamante ne moom mooy euh, diggante baay ak doom laa ko mën a tuddee muy euh, son excellence monsieur le président de la république Sénégal Macky Sall ak way juróom wi di Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade euh, ex président nan nga jàngatee relation boobu. mais relation boobu dafa ma neex. Mm-hmm. parce que nag Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ku bëgg Macky Sall la. Mm. Macky Sall. Mm. complexe Abdoulaye daf ko yor daa yor complexe mm-hmm. bi ñu. 2012 bi ñu daanoo ci élection yi. comité directeur bi Ablaye Wade mujj def nga xam ne da koo def mu dem France toog fa toogaayam bu yàgg boobu. Hmm. def ne ku makki woon na ko wuyu lu mu la laaj na nga lu mu kum bu la laajee dara na nga ko ko wax. Hmm. nee na lu ma ko de moo ko wax ci devant tout le com membre tous les membres du comité directeur. Hmm. mu ne ku Macky Sall woo mu ne sénégalais yi bañu ñu ma de. da wax na dëgg. Ablaye Wade dé euh, colonel Malick si nee na Abdoulaye da ko ne Macky Sall moo may remplacer bu ma fi jógee te ba mu koy wax loolu set yàgg na. Mm-hmm. ak nag keneen ku waxaat ne Abdoulaye Wade ne woon na ma Macky Sall moo may remplacer ma fi jógee. Mm-hmm. ko yéene woon pour mu remplacer ko nag. Mm-hmm. xëy na ci diggante bi. saytaane day jaar ci diggante baay ak doom jaar ci diggante nit ak xaritam. xëy na saytaane moo ñëw. mais yéene ba ko Abdoulaye Wade yéene woon pour le président papa Abdoulaye Wade yéene woon. yéene boobu moo dellusiwaat ba mu nekk président. mu nekk président ku ku respecte Abdoulaye Wade la. président Macky Sall. Hmm. dafa am complexe Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade papa Abdoulaye Wade xamoon na ne Macky Sall da koo respecté. Hmm. da koo fan. da koo fan ah oui idoolam la. waaw hmm. da koo respecté daf koo fan. moo tax nag jubóo bi ñu jubóo. kuy nit ku yiw rek wala ngay nit ku baax rek neex na la. beneen jubóo diggante euh, sunu maam Abdoulaye Wade ak tamit sunu baay bi di euh, ma Madické Niang boobu tamit loo ci wax. gis nga ma Madické. kooku moo gën a doon sama xarit. Hmm, ndeysaan maître Madické. Hmm. sama frère la sama xarit la. Hmm. xëy na politique moo doy waar rek. ak ay saytaane mais Madické. Ablaat rek la bëgg. moom da koo bëgg ko daf ko ragal sax moom. Madické ñi ma boo bu la Ablaat masaana booleeg moom. du ñi waata dem ci président Wade ne ko yaa ma boole woon ak diw. jaay ko mu jël alalam jox la. ku bëgg président Ablaye Wade la. te nag dañoo yàgg. ma Madické. man 96. fekk na daana fay ay facture courant ci parti bi lu ma xam man. Hmm. waaw 96. xam nga wax ji day dem fu nekk. Hmm. kon du ma ci wax lu ma xamul. Hmm. mais ma dikkee. ku yàgg def ci pa PDS la. ku bëgg président Ablaye Wade la. dafa am benn bis bis bi Serigne Salim Mbacké wàccee liggéey yal na yàlla yokk leeram. 2007 2007. Euh, président Wade. maa ngi jël témoin monsieur directeur école bi monsieur Moussa Ndiaye sëñ Moussa Ndiaye bu sëñ Cheikh Saliou mm-hmm. ma taxaw buntu kër Alaaji Baara fekk président génn dugg otoom mm-hmm. ma taxaw buntu kër Alaaji Baara di xaar oto président dem fekk ñu war a dem kër sëñ Cheikh Matilé mm-hmm. mais fi ma taxaw sama oto di xaar oto président dem pour sama oto ñëw oto yi ñëw président woo ma président Wade dama ne ko ah président yow tey du la tooñ parce que tey da ngaa am naqar ndax sa bi fi jógee fekk président euh, Pape Diop toog Karim Wade toog. Mhm. ma ne ko mais président mu naa ma ne ko ku la bëgg ngi nii ku la jàppale ci Touba ngi nii. Mhm. ndax man booba taa man maa ci xam dara. Mhm. ndax ay xew da daan am ay màggal. ma ñëw ci ma woo maître ma dikkee ne ko màggal sàngam dafa am. mu ne ah Aïda ma ne ko xaaral mën naa la jënt ba nga ñëw ma dem ci Aliou Sylla opérateur économique. Ah, nekk Mars Ocas. Aliou Sylla daana ma lebal ba ay 6 millions 7 millions. ma ñu di ko yóbbu ci màggal ci jamono yooyu ci jamono yooyu. Mm-hmm. ma ne ko président mi ngi la fi defal loo xam ne yëgoo ko. Mm-hmm. ndax yi ñu gërëme yëpp ma dikke mi moo ko def. Mm-hmm. président jàpp sama loxo ne ma ma dikke li may defal. te du ngeen ko yëg. moo ëpp li may defal ngeen yëg waaye dama koy bàyyi yàlla. oh macha allah président Wade moo ma ko wax. mi ngi dund. ma dikkee ngi dund. keroog monsieur docteur monsieur Ndiaye ne ma ah. man nag da ay dagay yow bett nga ma ndeke yow bii ki am nga ko man ñun taxaw ñun ñëpp taxaw Ablaye ne la ay dagay kaay. Mm-hmm. ma na ko ah loolu war na di ndax Ablaye dama yàgg ak moom sama papa la. Mm-hmm. Mm-hmm. ma dikkee nag moom wax dëgg yàlla ñëpp bëgg ñu jubóo. erreur rek mais ñëpp a bëgg ñu jubóo. ndax ma dikkee moom xoolam Ablaye rek a ci nekk. ginnaaw Sëñ ab laa di la bëgg lool lool lool ba ñëpp xam na la koo bëgg ci li wér. Euh, kenn ñi mu ta wax ci euh, PDS ba pare te duggoo duggoo ci Karim Wade. Karim Wade avenir am ci politique nan nga ko jàngatee yow Karim am na avenir politique. Hmm. Hmm? ak tekk jim na tekk fële. mais tekk ji ko jim na tekk fee. Hmm. ah mais teewul mu am avenir politique parce que nag <laughs> Karim Wade papaam la yàlla may ci politique loo xam ne mosu ko may doomu aadama. waaw waaye da gis nit ku mokkal. dama la expliquer rek dama la expliquer rek. ndax yu mag yi moom genn wàll gépp dem nañ. ah oui PDS yu ndaw yi fi nekk ay karimiste lañ. waaw bu Ablaye Wade yàlla guddalee fanam. ah. ndax Karim ba léegi nit ñi tamit bëgg nañ ko. Mhm. parce que lii dox digganteem mag exil bi mu def nii. Mhm. te nit ñi dañ ko ci yërëm. Mhm. xam nga senegale bëggul ku néewal doole nit. waaw ci wér yërëm nañ ko ci loolu nag. waaw yërëm nañ tamit papaam. ak ni mu sonné te papaam nag kuy politique àdduna bi laa wax. moo dàq politique moo dàq politique ci lu wér loolu moo am. politique moom. jalon bu mu ci teg màggetul xel mi dem noonu de dégg nga ki dem nee <laughs> feebar du màgget du feebar de. Ah wax dëgg wax dëgg wax dëgg. <laughs> màgget du feebar de. macha allah yàlla na ko ah. yàlla yàggal. amiin laaj bi ñuy tàggatoo dama koy dëxëñ muy ñaari laaj ci diggante wàllum éducation bi ak wàllum santé bi lan nga ci euh, tàggatoo ak askan wi ndax fii ci Touba euh, santé bi war nañ ci war nañ ci gën a yaatal mais sama technicien monsieur Mourtada mi may wan ne. Mm-hmm. waxtu wi jeex na santé bi ak li di li di li di enseignement bi lan nga ciy wax ci diggante Touba ak Mbacké. enseignement bi moom. Mm-hmm. li ñu ciy wax rek mooy comme yàlla dafa def ne fii. école yi duñ école nasaraan yi bariwuñu xale yëpp Mbàkke la ñuy jàng ji mm-hmm. bërki démb le président Fallou Mbàkke woote na def na démb rek àjjuma mm-hmm. àjjuma mooy bërki démb mm-hmm. def nañu réunion de bureau budget bi di ñëw pour jéem a am nañuy wute ay car conseil régional bi parce que lu mu mébét la pour def ko ci jox ko xale Touba yi ndax xale tubaay ñooy jàng ji Kéré Mbay ñooy jàng ji Mbàkke ñooy jàng ji Misira mm-hmm. fépp ñoo fay jàng ji ak belal mm-hmm. su xëyee suba teel ba xool leen sa yaram yi day daw ci lu wér dañuy langaamu sax jigéen ñi dañuy langaamu sax ci kaar yi mm-hmm. ci oto yi pour xëy jàngi ah, te njàng moo yorum réew il faut que nit jàng alxuraan wala mu jàng français ndax njàng moo yorum réew ah oui ah oui ah te njàngum alxuraan dafa baax xoolal sëriñ bu macha allah waaw sama sama nijaay jooju wala waaw li tax may jël exemple moom day homme public tey jii fu mu jàngee doomu daara la donc daal mm-hmm. la génne. walaay walaay tey jii. Mm-hmm. mi ngi feeñ ay licenciés. Mm-hmm. ñoo xam ne am nañ licence. kon ak sëñ am Mouhamadou Badri mi ma la wax sànq. na fi yàgg te wér. xoolal li sëñ Mouhamadou Badri def. ubbi ubbi entreprise ay nit di ci liggéey mu leen di fay par weer. ah te waroon tëdd. ci wér ah ci wér. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci loolu. xoolal sa sëñ bi sëñ Rafael. sëñ ah. Rafael saa yu mi ngi ubbi nit ñi. wan leen ne lii lii njàng ma baax mhm, mhm. di leen jàngal mhm. sëñ Rafael tam bu nekk lu mu wax rek njàng la wallaahi wallaahi ma ñëw nekk santé bi santé bi tamit ah yàlla suturaal nañu nag hôpital bii nga xam ne ci laa nekk muy hôpital Ndamaatu ah bu doon hôpital de référence dina am hôpital Ndamaatu la yi fi des nag baax nañu baax nañu baax yeneen hôpital yëpp baax nañ mais nag hôpital Ndamatou problème bi euh, li ci li nga xam ne mooy bénéfice am. Mm. li mu am bénéfice bi ci nekk. Mm. mooy ka fa nekk dafa jàppewul hôpital bi ne lu mu liggéeyukaayam la. Mm. daf ko jàppe ne ci lay liggéey ci la war a liggéey Serigne Touba. ba hôpital ba fa mu nekkoon. fa mu ko jëlee. ak fa mu ko yóbbu. soree lool soree lool. macha allah waxtaan boo fa demee tey jii mm-hmm. di xam ne fa mu jëlee hôpital bi mm-hmm. ak fa mu ko yóbbu mm-hmm. sore na lool ci li wér kon xam naa dama lay bàyyi rek nga wax sa kàddu yu mujj ci émission bi ñu jox dig daje beneen jamono parce que waxtaan wi doyaluñ te liñ fi dégg lépp njëriñ la tabaarkalla macha allah am nañ ci njëriñ loo xamante ne sax kawe yàlla na fi yàlla yokk jàmm waaye dëkk bii di Sénégal tamit yàlla yokk fi jàmm ndax comme ni nga wax si biir wax rek jàmm ci la lépp xaj euh, ñu bàyyi rek nga tàggatoo di gërëm di leen gërëm rek opportunité bi ngeen ma may di leen sant. Mhm. ndaxte di wax ne wax ji nag koo xam ne am nga ci loo ci yëg te du lu kii. Mhm. nga jéggal ma ko. Mhm. xelam xel moom toll noonu rek xam nga nit moom bu amul xel kay wax. mun naa wax lu heurte nit. ci mais fekk na jubluwuma ko ci. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Ah, di sant bu baax sëñ Abdou Fatah Mbacke Fallilou. sama wasila. maak sama baay. waaw ak sama bàjjan soxna maam Seck doomi sëñ faal yu fi nekk yëpp. Mm. di leen gërëm di leen sant di leen nuyu di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool te wér ci barke Serigne Touba. macha allah. jërëjëf euh, sunu yaay soxna Aïda Gaye ex euh, député la waaye man député actuel laa koy jàppee parce que euh, comme ni mu waxee ci biir waxam rek wax dëgg yàlla ku amal njëriñu askan wi la ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ah, nii rek la incha allah rabi danañ seetiwaat beneen leader boo xamante ne mi ngi yëngu ci weneen pàcc wu mën a doon parce que liñ bëgg mooy li ñuy dund nit ñi xam ko ah, ngir ñu mën cee jariñu kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sama sëriñ sëriñ seex moom sëriñ Saalihu Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye ñaanal doomam ji nga ne ci laa jébbalu ah, fi lool mboolem njabootu Serigne Saliou gépp jox leen dig daje ndeem sob yàlla ci yeneen i jamono seen mbokkum taalibe la Serigne Moustapha Dieng ci lii di baatu askan wi ci biir Rafah TV sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu